d'abord, on, on, est, on, se réjouit qu'ils soient arrivés à bon port. Je pense que les risques qu'ils ont pris pour être là méritent qu'on les encourage et qu'on les félicite. Ils rejoignent maintenant une communauté. Parce que la communauté sénégalaise aux États-Unis est un modèle de travailleurs, de gens intègres et de battants. Ce qu'on leur souhaite, c'est de vraiment s'intégrer dans cette communauté. Et nous devons tout faire, autorité politique ici, comme autorité consulaire et administrative ici, les aider à s'intégrer. Ils ont démontré leur désir de vivre, ils ont démontré leur désir de servir, mais ils ont démontré leur volonté d'être utile à leur pays. Moi, c'est tout ce que je retiens. Alors, est-ce que vous avez un, un, petit programme pour eux qui sont là, l'organisation, et comment ils vont faire est, par rapport à la, aux est, associations qui sont là On est obligé, uh -huh. on est obligé de les accueillir. Ils sont déjà là. Il faudra beaucoup les soutenir dans leur démarche administrative d'abord. Parce que ce pays est très dangereux. Vous y entrez facilement, mais vous y êtes régularisé très très difficilement. Je connais des gens qui sont là depuis 40 ans et qui n'ont pas de situation administrative régularisée. Donc il faudra que leurs aînés, que les autorités administratives ici les accompagnent pour qu'ils puissent faire ce travail nécessaire d'être en règle. En tout cas, nous sommes que, de tout cœur avec eux. Nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait parce que ce sont des gens déterminés. ñeme nañu jaral na leen def nañu lu ñu mën ak mais surtout dañu jaayante jaay seen bakkan pour egg si fii dañ leen di jaajëfal si loolu mais nag dañu leen war jàppale dañ leen war dimbale gis nga li sénatrice bi wax léegi li représentant maire bi wax léegi looloo am solo xale yooyu dañ leen war teeru dañ leen war jàppale dañ leen war dimbali mais li ma leen di digal man ci li ma xam tuuti ci dundub diaspora Amérique fii yéen ñi fi jiitu ñu bari da ngeen nekkoon di jaay ñii nekk yor yi dara su ma bi ma rombaatee 116 sama xol dafa naqadi parce que dama gis la fa sénégalais yu bari woon te léegi ñeneen nangu arlem bu bees bi bu mu leen dalati moo tax xale yii di ñëw bu ñu ñëw buuxanteeg mag ñi certaines activités nañu dem jàngi métier nañu def leneen loo xam ne day gën a yàqali activités communauté sénégalaise fii ci États-Unis su ñëpp di jaay day mujje doon problème parce que dañuy doon ci mbedd mi et puis ñëpp di jaay lépp la même chose baaxul man li ma leen digal mooy communauté bi na leen teeru na leen orienté ci ay secteurs yoo xam ne bariwul nit xam nga yéen ñu nekk fi xam ngeen ni ñi fi nekk ouvrier ñoo gën rafet dund trop ñiy jaay parce que bariwuñu am nañu liggéey te nit ñi soxla nañ leen donc teeru leen baax na mais oriente leen ci activité yu am solo man loolu laay digal mag ñi fi jiitu ñooñu. mais président un dernier mot léegi jeunes yi nga xamante ne ñu ngi Sénégal di espérer pour ñëw pour gis euh, dund bi nga xamante ne xam nga dafa métti dëkk ba lan ngeen programmer pour ñoom pour comme ça faciliter leen. suwaat ñu ñëw soit ngeen faciliter leen. ñu am liggéey xam nga ñun ñun politique yi war nañ nangu ne suñu liggéey des na parce que ki gedd ndeyam gedd baayam gedd réewam pour jaay bakkanam pour dem wuti leneen kooku su amoon li ko gënal daf fay toog xam nga duñu wax dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax donc réponse bu njëkk bi mooy fexe ba ci réew ma kenn dootul bëgg ñëw mais ñi fi ñëw ba pare ñu jàppale leen ba ëllëg si daañu mën wax ñëlekat toog leen ñun ñu dimbali leen moo tax man li ma gëm mooy diaspora bi dafa am rôle ak place ci développement suñu réew il faut que comme yeneen réew yi soo demee ay Italie ay Maroc ay Portugal ay yooñu diaspora bi moo defar réew ma xam leen la parce que chance bi ngeen am mooy da ngeen xam fële xam fii donc ñu war leen jël jox leen seen place bu tax ngeen mën liggéey fii di jëriñ fële loolu laa dafa ne mooy. jërëjëf président